Et il suffit tout simplement de le voir. Et d'ailleurs, ces jeunes-là que vous voyez, ils sont partis jusqu'en Côte d'Ivoire pour remporter le prix, n'est-ce pas, en fait, d'une compétition bien disputée. Et à la suite, ils ont été récompensés et pourtant c'est ce projet-là qu'ils ont présenté. Donc vous voyez en fait l'attractivité. Récemment à Djibouti, lors, des élections, lors de l'élection présidentielle, a été discuté. Au Burkina Faso, pareil. Et donc aujourd'hui, la jeunesse africaine quand même donc, est en train quand même d'être dynamique. Mais ces dynamiques populaires, sociales, doivent être matérialisées à travers des actes. Les institutions devraient permettre tout simplement aux jeunes de s'exprimer. La démocratie, ce n'est une affaire tout simplement euh, de gérontocratie. C'est une affaire tout simplement de dynamisme, mais aussi c'est une régénération en réalité. Les systèmes politiques africains sont, sont fermés et recroquevillés sur eux-mêmes. Il faut tout simplement du Et ce qu'il faut, avoir des jeunes engagés politiquement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes Africains qui émergent, mais ils n'ont pas de visibilité institutionnelle. Et aujourd'hui, donc, il le faudrait pour que tout simplement, en réalité, que l'Afrique ait ce la jeunesse africaine est très waaw projet bii nii dafay sàkku que ñu jël ci li nga xamante ne moom la ñuy tabbee nit ñi ci Sénégal ñu ne ñii di ndaw ñi nañu ci jël euh, lu tudd lu toll ci pourcentage ci fanweer ñu jox jàkkale leen benn liste boo xam ni ndaw ñi ñoo fay nekk bu ko defee fépp fa nga xamante ne nii dañu fay takkee ndomba tànk jeunes yi danañu am benn représentation boo xamante ni nii dana leen waxal dana leen dooleel waaye aussi dana mënul lu ñu apporteel Sénégal ci seen mën-mën ci seen xamxam ci seen xarañ mais aussi ci seen bëgg seen réew moo tax nga xamante ni man li tax sax ma adhéré ci bi ñu ñëwee wax ma ko ñii nga xamante ne ñooy ndaw ñi bi ñu ñëwee man gis ma dama ci ànd parce que ñoom ñëpp boo xoolee ay parti politique la ñu nekk ñi bokk mm, au pouvoir ñi bokk opposition kon nga xamante ne ñoom xam nañu enjeu yi beneen bi ci topp mooy ñoom dañoo gis ni Afrique dafa def ay jéego ci àdduna ñu wan ko jëmmal mooy depuis 2006 Banjul chef d'état africain yëpp dañoo booloo ci Union africaine ñu adopté la charte africaine de la jeunesse Afrique raw ci ñëpp Sénégal nag doon état pilote ci Union africaine Sénégal dëggal loolu 2009 Sénégal ñëw ratifié ko jox ko une base conventionnelle maanaam dafa am jëmm ci sunu yoon dëkk. léegi nag li ci des mooy ñu mën a jël projet de loi bi nga xam ne ndaw ñi ñoo ko xalaat ni lii kat Sénégal adopté na ko mais amul n'est-ce pas benn pas-pas bi ci war pour mu mën a am jàmp ci institution yi ñu ne nañu teg projet boobu su ko defee ndaw ñi kat nga xamante ni dinañu mën a nekk ci fi nga xamante ni foofu la ñuy décider parce que ndaw ñi kat dama naan ne ñoo ëpp ci ñiy wote ñoo ëpp ci réew mi mais ndaw ñi boo xoolee nekkuñu dara ci constitution bu Sénégal te constitution bu Sénégal ci préambule am day wax ci sa jigéen ñi ci biir constitution bi day wax mag ñi mais waxul dara ci ndaw ñi léegi nag projet bi dina jëmmal loolu dëggal ko jërëjëf